président Macky Sall di Benno Bokk yakar natalam ci xet bu ñëk bu observateur tay jilé mo nga ci naan képp ku ma bëgg yakal sama paluwaat ndax sa ñi bop ci responsable mbotay gi dina ko diglé ak yow walum fitna di violence ci élection yi képp ku ko soké mu né lo ci gobé nang ko gar lolé ne ay kàddu nak mu ngi ko yëkëté bi ñuy taxawal mbotay gi ko wara campagneal ci vox populi mu tek ci mom président Sall ne masuta saga kenn ci du ci campagne bi lay tambali di def lu ni mel walum jongante yi nag mu né ci biir réew mi daanaka mom moko na rumbux ci ñom Benno Bokk Yaakaar jafe-jafe kay fi mu ne mooy ci Ndakaaru Pikine ak diwaanu Thiès Touba sax mu ne daanaka mu ngi yaakaar ne mu ngi ci loxo ci Les Échos moom mbërum benn Bokk Yaakaar joxe fab xibaar ci ne ñeneen dinañ ñëw wàlliyaani ci mbootaay gi président Sall doxalin woowe nag moom gisewu ko népp transhumance waaye mu ne ay kilifa yu responsable yu mat def jàngat bu baax gis ne mooy mbër bi gën ñoo ñëw fekk si mbootaay gi yéene kaay bi di la tribune mel ni ku yéemu ca wax ja naan président ngay dagalal nag wax waxeet ci politique teg ci wane na mu jàpp ci bi mu rëbbijee la mu digal changement yi nag moom Macky Sall mooy bu ñu déglu ñuy saagawaate ndax du ci ñàkk ci rëbb gi nag keneen ku ñu teg bët jamono yi jar lool soxna ay dëmbooc ko nataal bu yanj ci xëtëb bu njëkk yéenekaay bi xamal ñu ne ginnaaw Idrissa Seck Macky Sall Ousmane Sonko mooy ka fa demoon démb moom Ousmane Sonko nag mel ni wékkul ak ngañaayam ci njàppale am déet bu soxna ay dëmbooc ndax ci les échos ma nga ca daan xaat am na yàqin ne ñoom ñooy ñiy gañe mu ne réew mi mu ngi nag ci bu bon boo xamante ni képp ku taxawul ci lu koy soppi complice nga ci yàq ya Ousmane Sonko yëkëté yoy kàddu ci jamono yu ko avenir Sénégal bi ñu bëgg doon dalal xamal ko ne moy seen mbeur Habib Sy fi jamono ministre mom ci Vox Populi maître Madické Niang moy mbeureum mu ne mooy ki gëna woor ci candidat yi ndax jikko yu baax yi mu xamé won Sénégal yi mu lambol te jamono yoy jikko yépp di ranké ci mim réew direct info xëyee nataalu Khalifa ababakar Sall di ñu né prisonnier bi ñëpp soxla jamono yi li waral nag njarteem ci gis-gisu yéenekaay bi moy 2009 moy ki tëraloon coalition Sopi. 2014 mu def lu ni mel wa Benno Bokk gagné élection élection régionale du 2016 kattan gi waraloon sax ñu 2014 coalition bi ci nguur gi doon fexé wañi bayré bi ci gëtt nit ñi ci Dakar ak defet bi mu leen jam 2014 ci capitale bi lu jëm ci walu yi lëngoo nak ak sud du quotidien né ciongu gu mag ca la jamono yi mbeur mu ne ak fa nga yaakaar rek professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger bu Ndar ci kay bi né ci way wujjee ak rawante la ñu ne waaye kenn ci ñom mbeuri nak sanégul karawaas raw kay bi di réew mi mom laaj bi mu moy ana kan ci maître Idrissa Seck wala Macky Sall moo nar a jariñu ci njàppaleem PDS Babacar Justin Ndiaye politologue ci Vox Populi mel ni ku ci indi tontu ndax moom daa jàpp ne ki ci yore kàddu gu mujj gi mooy mbooloo mi ci PDS te duñu leen faral di dégg muy la masse silencieuse soxna Aïssata Tall Sall ci Les Échos ginnaaw ŋàññ yi moom la mu jàpp mooy du ci indi tontu ndax moom bëggul yëf ya dooni saagante waaye débat ci xeltu la woote wootewul ci saagante Sénégal di dalloo ngoon taax mu am solo ci taarixu réew mi président Mamadou Dia xibaar boobe source a ko xëye yéenekaay bi gis ne ak dogal boobe mu jël moom président jëm ci tuddee président Dia taax mu ni mel day delloo kilifa gi kàngam gi dara jaam dayoom